soobu nag ci xam-xamu xadiis xam ni mbir mi kat ndekete ay jaxas am na ci yu wére ngi fii yu wére dee ngi fii yu daayifa ngi nii ay mawdua yi yooyu yëpp mën naa yu ca bari xamee na ko ci biir taxrij boobu nga xam ne xaafid al iraqi defoon na ko te xam ngeen xaafid al iraqi boo jàngee dundam kilifa la woon al xaafid al iraqi ci jamonoom mën naa ni bari waana boo ko joxoñee pour nga joxoñal ko moroomam mu muy moroomam seen jamonoom yombut yombut dara al xaafid al iraqi moo tax sonn gi mu doon sonn ci xam-xamu xadiis bàyyam di sonn ci fiqhul ahnaaf bàyyam da ko ci daan ŋàññ naan ko xam-xam bii de xam-xamu ñu amul dara la xam-xamu xadiis xam-xam ñu amul dara la di ko saboté waaye Cheikh Nasir sabotage yooyu jëpp mu découragé ma nga continuer rek lu tolloog daanaka sulusay xarn Cheikh Nasir continuer ko ba ci la génnee nekk imaaman fil xadiis noonu ci yooyu sax sabab la woon ci li ma junj sànq benn xew-xew bu doxoon digganteem ak baayam ci masala yu mel nii ba loola sabab la ba mu bind taalif téere boobu taxrir asaajid itiqaad alqubuuri masaajid téereem boobu muy wartandikuloo jullikat bi jaamukat yàlla bi muy jullee jàkka juñ suul nit wala jël ay armeel def ko jullee kaan bokk na ci sabab yi mooy Cheikh Nasir dafa gis ni baayam dafa gëmoon ni almasjidul amawi bi nekkoon foofu ci Dimashq dafa amoon ay ngëneel yu bari yu ñuy mën a gam-gam lee sax jullee fa ak jullee jàkkaay yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñoom ñu gëmoon ko ay mashayikh gëmoon ko di fa jullee te Cheikh Nasir xam na ni foofa ab armeel ma nga ànd ak nee na sama xel mësul dal ci xam ne xadis yi booba xamagul sa xadis yu wér ak yu wérul waaye xam na ne xaj ngëneel yii ci jàkka ji simple nii ginnaaw yonente bi loolu sama xel nanguwul nee na ci la dem di gëstu di gëstu ba gis loola bi mu gisee loola moom bàyyam ñoo doon liggéey ci cantine bi te foofu ma leeral ni menuisier bi la doon def ba def ci ñeenti at ci jamonoy sedd nga xam ne liggéey bi daawul dox benn bis mu romb bàyyam ci cantine bàyyam ni ko ah mbir mi daa duxut mu ne ko waaw mu ne ko ah tey ngaa ñëw liggéey ci cantine mu ne ko bismillah mu ne ci la commencé liggéey ci cantine Cheikh Nasir mook bàyyam bu waxtu julli jotee ñu ànd julli ji tisbaar suñ ñëwaatee moom mu ubbi cantine bi liggéey bàyyi ji dem ñibbi noppalu ji ba tàkkusaan bu doog a ñëwaat Cheikh Nasir nee na waxtu tisbaar jot rek bàyyi ji julli ji moom mu bañ di ji julli ji bàyyam laaj ko lu tax mu xamal ko ni ko fii xam na ni ngëneel yi ñu ciy wax amut ñaareel moom mooy jàkka ji dafa am arme te mu ci julli noonu ci xista bu gudd a gudd damay wañ mu jël sama waxtu moo tax ma tënk ko rek ci la dem ba taalif téere mu taxsir asaajid fi tiqaad al quburi masaajid bi mu ko joxee bàyyi bàyyi lii day dara Cheikh Nasir loolu bokk na ci li ko gën a merloo ndax ay adilla yu wér la ci indi waaye nag bi tawfiqillahi subhanahu wa taala dem na ba bàyyi ji nangu masala boobu ci dundam masala boobu ak masalab ñaari mbooloo ci biir jàkk jàkk ji am na imaam ñu ñëw xam ngeen masala masala bu siiw la fi noonu loolu bokk na ci li ko booleeg bàyyam boole ko nag masaayix yi nekkoon ci dëkk bi ba dem ba jural na ko fitna yu rëy ba bàyyam génne ko këram bàyyam woo ko ni ko Cheikh Nasir dama lay tànnaloo fi ne fitna yi metti na bu fekkente ni ah imma al muwaafaqa wa imma al firaaq dëppoog man ci sama mën haj dundi sama biir kër ndax maa fii bàyyi wa imma al firaaq wala tàqali Cheikh Nasir ni ko mayoo ñetti fan ma xalaat ci mu toog ñetti fan xalaat ci dellu si ni ko axtaarul firaaq kon man tànn naa tàqali ko yow bala ma laa sonalee sama mën haj ndax man fas yéene ma koo bàyyi subhanallah kon xoolal loolu ab jàng la bu rëy ci koo xam ne tey mi ngi góorgóorlu ci diineem doon sax am borom xam-xam doonu dara ak simple nit la rek buy góorgóorlu ci diineem ñu ni ko fitnaal ba génne ko këram kii da ciy mujj rek waaye boo jàngee dund borom xam-xam yi daanaka taral ajaba la uccaam ay kéemaane ci kaw jëf ngay gis Cheikh Nasir nee na mu génn bi mu génnee yàlla defal ko tawfiq métier mi mokk lool yàlla defal koy clients yi fees dell ba dem na ba daanaka li muy liggéey ci liggéey bi sax dem na ba tabax ci kër noonu ca la génnee kër baayam tàqali koog moom xataa sax abi isxaaq mi ngi koy laaj ci kaset yooyu naa ko waaw est ce que loolu duñ ko tuddee tong sa ñaari waajur ñu ngi ko laajee laaj boobu dafa reetaan dafa ree ndax xam na ni wax dëgg yàlla loolu la chaque ni tuddul tong sa ñaari waajur ñaar moo mën a am topp sa waajur ci bidaa bi topp sa waajur ci njuuyoog sharia ak ànd ak moom ci li nga xamante ni moom moo juyoo njàngale yàlla ak yonent lii kese la loolu day dëppoo laaya je wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bi an fala tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa génn na waxu ko lu ñaaw waxu ko lu bon ànd ak sax bi muy génn da koo ab ay matériel bi muy génn da koo àbb sa nangam nangam ji nga xam ne danga ko liggéeyee ci cantine te soxlaatoo ko aal ma ko bàyyi ji tamit ñëwee lool abal ko ko abal koy matériel yu bari mu génn daal dem benn kon dama laa bëgg a wax ni Cheikh Nasir génn na waaye génn génn wu ñaawit nag wax dëgg yàlla loolu suñu mat a bàyyi xel la bu ko defee loolu jural na ko ay wexan yu bare bari masaayix yi di def ay jaxas-jaxas digganteem ak baayam ba juyoo am ca dem na borom xam-xam yi di ko waxal ay wax dem na ba daanaka jur na ay mbir yu doy waar a doy waar kon Cheikh Nasir al Albani rahimahullah lii rek dama ko doon junj ci lenn ci ndawam damay wax ni gàttal naa doon te guddal naa ca loolu ñetteelu tombe mooy sifatuhu waadiyu fi nafsi wa xifduhu li waqti melokaan bi ko yàlla joxoon Cheikh Nasrul Albani yàlla dafa defoon nekkul woon jëmm ji njool lool gàttut waaye nag njool la gën a jege ci gàtt ku digg doomu la bëgg laa bëgg a wax ku digg doomu la woon doonte njool la gën a jege tubaab piir li ñuy tuddee tubaab tubaab fini la woon ñàkkul laal la yenn ci ay téeréem yoo xam def nañ ko ci ginnaawam am na ci benn téere bu ma mos a gis boo xam ne ñu ngi ci def benn photo laal la photo carte wallahu a'lam ñu ngi ko ci def boo ko xoolee da ngay xam ni kii nuruutu sax ab arab sikkim bi dafa weex tàll waaye loola nag mi ngi am ci bi muy jëm mag amma bi muy tàmbalee gëstu ci xadis sikkim sax daanaka amu ko woon boobu soo dégloo ay kasetam mi ngi nettali benn kaset mu ni mës naa jiite benn fajaru àjjuma nga xam ni gars yi dañoo jàpp ni fajaru àjjuma moom suratul jumaa rek nga war a tari mu ni ba ma jàngee leneen mu ni keroog sama sikkim bi sax commencé gul a génn noonu la ko waxee ci kaset bi mu ni sama sikkim bi sax commencé gul a génn mu ni ba ma noppee rek daa mel ni jàkka ji daanaka xew-xew dafay am ndax song bu mu ko song ndax rek pourquoi mu tari benn saar bu ni suratul jumaa gis ngeen bidaa ni muy def ni damay wax ni bidaa li muy rey ci aw askan posan sax du ko rey ci nit Cheikh Nasrul Albani rahimahullah yàlla defaloon na ko mu nekk koo xam ni ku lewetoon ku baaxoon bokk na ci nettali yim nettali boppam balaa ñuy wax yuñ ko nettali mu ne bokk na ci tawfiq yi ko yàlla defal ba léegi mooy li ma doon tudd sànq dimbale gi ko sunu borom dimbalee man defar monde te nee na loolu dotewut ak dara ak sàkku xam-xamu xadiis nee na jox naa ko ci bis bu ne bis bu ne am na heure yoo xam ni yii laay dem ca cantine ba su ma paree ma tëj ba mu des talaata ak aljuma mu ne talaata ak aljuma moom ñetti waxtu rek laa koy jox yi ci des moom damay daal dem di sàkku xam-xam la ca des ma sàkku lu ma dundalee sama njaboot ak samay doom muy nag ba may sàkku maa ngi sàkkoo am rek lu yem loo xam ni rek sama njaboot duñ mën a tumaraake ma dundalee leen ko ngir rek di sukkandiku ci waxu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam allahuma jaal rizqa ali muhammadin quuta yow yàlla wërsëgu ñooñ Muhammad bul ko def mu nekk ay milliards ñuy denc ci banque ak yu kenn xamul ak lu fi fanaan barki démb ba tey waaye na nekk loo xam ni mën nañ koo dundee rek ba ñu xiis subhanallah xoolal nim doon sàkkoo jëfe lim doon jàng te loolu am na tasiir bu rëy ci xam-xam doon naa ko nettali mbokk yi ci dund imam Ahmad ibn Hanbal gis nga xam-xam saa boo ko xamee nga jëfe ko rek jëfe googa dafay xasanal saw yaram pour nga xamaat leneen pour jëfe ko moo tax imam ahmad keroog ba mu jàngee ne yonente yàlla bi daa gàjj woon bi mu gàjjoo mu neexal te loolu sax xanaa sax nit ki bu ko def dara du ko ca fekk nag mu neexal ka ko doon gàjj di aba tuiba diinaar mu ni tey balaa tëdd ci lal dana gàjj te dana neexal ka koy gàjj diinaar ndax rek royee ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ñoom di tasxiif nit ñi di leen defal culture générale nañu xam lii xam lee cuqat fee cuqat fale xam la leen amul benn solo li am solo mooy jàng walaw qalilan nga jëfe ko ak a bari ko yenn lu dul jeex yow mi nga xamante ni mën naa ni riyaadu saalihin sax ku la tari la fukki xaris doo ko tari waaye li nga jot a xam yaa ngi koy jëfe yaa koy gën a barkeel ne kon mbir mi damay wax ni ak dogu la ak seetlu ko wutu xam-xam ñaari baat yooyu nañ ko bàyyi xel bu baax Cheikh Nasrul Albani rahimahullah mu ne yeneen waxtu yi maa ngi koy def ci taalib ak almaktabatul islamiya nga xamante ni boo ca delloo tey lu bare bare bari Cheikh Nasir liggéey na ko ba ko ba nga xam moo nekkoon li mu dénkaan nañ koy jox ay téeréem ay téeréem bi mu faatoo soo delloo ca almaktabatu zahiriya daanaka ilayhi yaudul fadl fa la ngënal yay delloo ndax mën naa ni lim jot a am fa la ko amee Cheikh Nasir dafa demoon ba ci almaktabatu zahiriya nga xamante ni daanaka addina bi loo ci soxla ci ay kàggu yi borom xam-xam yi bindoon boo demoon da nga ko fay fekk wala li ci ëpp bokk Cheikh Nasir dafa daan xëy subat ngoon ba dem ba nit ñi mënuñoo xàmmee ndax kii ndongo luy gëstu la wala kuy liggéey la ci biir maktabatu zahir heure bi gars yi xëy la ñuy xëy te moo leen di jëkk yegg day daan taxaw ci bunt bi di leen xaar gars yi bu ñuy wàcc midi fi lañ koy bàyyi te bu ñuy wàcc ngoon it fa lañ koy bàyyi léeg-léeg ca biir foofa lay jullee gee léeg-léeg nee na pour déplacer wu ñëw këram añ dellu da koy yàqal waxtu ak mbuus lay yore def ci ëmb care wala tandarma wala lenn lu mu am rek moom lay lekk foofu ci biir subhanallah xoolal ñooñu ni ñu nayee woon ci seen waxtu al imam an-nawawi boo gisee wooram yi bari boo jàngee dundam nee na moom añ reer ndékk bi mu calculé li muy jël ci temps daa bari moo tax mu ne léegi nafar woor benn yoon bu ko defee temps boobu du ko ko jël cheikh albani rahimahullah noo la meloon nee na may dugg foofa rek dem na ba gaa yi ñoo ma fay maa leen fay njëkk maa leen fay mujj mu jëntal gi gars yi dañ ko jox caabi maktaba bi utal ko xurfa néeg ci biir utal ko néeg ci biir donte am na ñuy wax yeneen i sababa tax sax ci ay liggéey yoo xam dañ ko ko doon liggéeyloo wa ala kulli xaal utal nañ ko néeg ci biir Cheikh Nasir su dikkee ci al maktabatu zahiriya day mel ni ku xiifoon ba ñu jox ko lekk bu gisee téere moo ko gënal lu mën a am bokk na ci firnde yi nga xam ne danaa ko joxe ci wane ne Cheikh Nasir ku sàmmoon la mu waxtam daanaka mën naa ni diggante yi muy toog ci biir maktabatu zahiriya julli rek kay tax mu génn ñi ko xam dañuy nettali ni boo ko mosaan a fekk muy taale bu ne waaleykum salaam wa rahmatullah naka waa kër ga baa jàmm rek jeex na amul guddal noonu la imam al allaama ibn al jawzi meral ibn al jawzi nga xam ni moom li mu taalif moom daanaka ki ay kéemaan la benn borom xam ne ibn al jawzi bu dellu si waatoon pour corriger erreur yi am ci li mu taalif rek loola doy na liggéey pour wane li mu taalif ni mu bare bala ko corriger mu yàgg ibn al jawzi liggéey yi nga xam ne mën nga kaa booleeg waxtaan da ko doon denc ba am gan lépp xalima comme daa lañ doon bindee day bàyyi ba am gan waaw na nga def naka waa kër gi mbaa yà loolu yàqul wax subhanallah alazim ndax loolu boo ko comparé ak nun nga xam ni subhanallah nasalullah tawfiq wal afiya waxuma la weer bi waxuma la at mi man ba toogee di xool waxuma la at mi liñ ci yàq ci wax waxuma weer bi liñ ci yàq waxuma semaine bi kenn ku ci nekk ci ñun rek waxal billahi alayka bis bi bis bi rek ñaata waxtu mooy yoo xamante ne def na habaan mansuran dem na zéro defoo dara shay'an la yanfa'uka la fi dunya wala fi al-akhirah te li gën a metti ci xol mooy da ngay fekk ko xam la muy def la yanfa'u fi dunya wala fi al-akhirah la muy def jëriñu ko ci àddina jëriñu ko ci al-akhirah moom la Cheikhuna Docteur Mouhamed Ahmad loo doon na ci da ngay gis ndaw loo xam day génn jëm xamul fenn fu mu jëm jëmul fenn day dox rek ma ni caraat ci sa kër ne ah ma ne dama doon doxante rek xaar ma toogaale xoolal xoolal yi yàq programme mooy yan léegi yow ka nga fekk foofu ak moom lan lan doon def donc ko yàqal kon yii ay njàngale yu rëy yuñ mën a génne ci seen dund Cheikh Nasrul Albani rahimahullah dem na ba mën na ne almaktabatu zahiriya dañ koo xamoon foofu ndax jariñu koo xam doon na ko jariñu dem na ba ci mujjantalu dundam ci waxtu yi nga xam ni nit ki feebaram lay tal téere bi mu mujjee liggéey mooy tahdibu sahihil jaami' as-saghir wal istidrak alayhi téere boobu danaan mooy téere bi mu mujjee liggéey ci feebaram ci tawatam allahu akbar xool lu doon wax mu ne inna maradi aqaadani an alxaraqa sama tawat ji day metti na fi ne ba nga xam ni mayetuma may def déplacement yu bari ak yëngatu ah mu ni faqad amla alayya maradi wa ajzi hada almashru dëgg dëgg am naa am na lu ko tiis lan moo ko tiis projet bi nga lijjanti sotti ko déedéet lan moo ko tiis daa waxaale oto bañ koy waaj a jaay jënd ko déedéet lan moo ko tiis maanaam danoo fab alalam déedéet li ko tiis mooy projet bu rëy bu toll nii mu tàmbali ko ba noppi feebar tere ko koo yekkal nee na moom loolu moo ko tiis subhaana malik al quddus Cheikh Nasir benn bis dafa xëy benn ndongo mooy nekk li muy daa xëy woo ab maçon mu ñëw mu ne ko sama buntu kër gi sama buntu néeg bi laa bëgg nga wekkil ma ko fekk buntu baa ngi féete woon wetu càmmoñ mu ne ko wetu ndeyjoor mu ne ko dama bëgg nga féete ko ko te càmmoñ ndongo yi ne ko waa chef bi loo jublu ci loolu mu ne bunt bi léegi côté ndeyjoor la nekkee muy fii xam nga fii la nekkee te jàkka ja nee la def te buy génn day def kër gi miir bi ni mel day def nii defaat nii doog a dem jàkka ja mu ne nii ak nii cinq fois par jour day jël waxtoo la hawla wala quwwata illa billah léegi maçon bi naka wekkil bunt bi mu féete côté càmmoñ nga xam day génn rek ñuy dem jàkk parce que nee na juróomi yoon yi muy génn par bis bu calculé lam cay yàq ci ay waxtu deseele bunt bi bu sa seewaat ko fee moo ko gën a noppale subhanallah alazim man wallahi wax ji bi ma ko njëkkee dégg ci kenn ci ndongo Cheikh Nasser dëgg la wax ci yéen na yéen na ma lool waaye man damaa foogut woon di diqa ak sew sew mën a seetlu yegg na ci sàmm sa waxtu fii man fooguma woon loolu déedéet loolu wax dëgg yàlla day moom maa kaana yaxturu min qabl fi baali yaakaaruma woon loolu Cheikh Nasir dem na ba bi mu feebaree ba loxoom mënatu la taalif mënatu la bind dafa woo kenn ci ay lenn ci ay doomam ak ay sëtam ay doomam ak ay sëtam muy wax ñuy bind li mu doon taalif muy wax ñuy bind fa kay fa kay Cheikh Nasir bu fekkoon aalaat yi am tey pencum tuwaay pencum kaat yi ordinateur yi yi yi xew tey moyen yi nga xam ni boo jaaxaanoon sa kawlal sax sa baaraam mën a yëngatu yaa ngi liggéey bu ko Cheikh Nasir fekkee woon kon lan ngeen yaakaar tey dina ko liggéey l'islam moom laay wax mbokk yi ni leen imam Bukhari ñoom bu ñu fekkee woon taabal yu noomoral yeeg ordinateur yi suñuy boromi xam-xam duñu fekk lu mu war a bind mukk duñu fekk lu mu war a bind ndax lépp dinañ ko bind malgré que li ñuy ñàkk-ñàkk ay moyen ah Cheikh Nasir day nettali muy dem dabal bu daa bëgg a taalif day faraatuy kayit ci mbedd kayit yi caaf léeg-léeg kayit yi caaf yeeg kayit yu xaw a baax yi naaw da koy faraatu pour am lu mën a taalifee amul dara xanaa taslixu saa dundee ba commencé avancé tuuti ci la tàmbalee am tuuti wecc doomam ju ñuy wax Abdul Latif mooy nettali Abdul Latif mooy nettali mu ni papaam Cheikh Nasr Albani avant 48 heures bi muy faatu 48 heures rek mu faatu avant loolu mooy dafa jekk dem yàgg mu ne ko jox ma saxiix sunan abi daawud bi mu taalifoo mu ne ma jox ko ko ma ne ko lu xew mooy dafa am lu nekk sama xel moom laa bëgg a corriger waat nee na loolu ak bi muy faatu 48 heures la toll Cheikh Nasrul Albani bokk na ci sàmm waxtoom ak xër demoon na ba ci mujjantalu dundam téere mel ni si sal ahadis ad-daifa nga xam ne daf ko fonkoon lool saxiix sunan abi daawud saxiix targhib wa tarhib ak bii ma la tuddal sànq muy tahdib sahir jaamia yii téere moom bokk na yu marqué lool Cheikh Albani ci donte moo ko taal kon dëgg-dëgg lii doy na ci kenn ku ne ci ñun mu xoolaat boppam ci moom mi nga xam ni lii de moo nuy xaar lii de wax dëgg yàlla moo nuy xaar ñun ndaw am na ngeen a jàpp ne kenn ku ci nekk day fàtte ne man mënumaa nekkum Cheikh Albani kon na ko ñoom Diouf nekk du Diouf la du noonu ah man mënumaa nekk ñoom Cheikh Albani na ko ñeneen nekk boobu ñàkk fayda moom mooy gan ci biir l'islam am yow da ngaa jàpp ne yow moom xeet yi moom da ngaa war a def nii rek ñu lay jëriñ doo jëriñ kenn lii de moo nuy xaar waaw su fekkee yëg na ni lii moo nuy xaar naka lan def ak sunuy waxtu Cheikh Nasrul Albani amma man hajam xam naa bu ma ci doon xuus dama fay far yam benn yoon waaye damay wax ni man hajam mooy ak tasfiya ak tarbiya jeex na mu gàtt ak tasfiya ak tarbiya moom ku déglu waxam xatta am na benn sharif boo xam ne boo ko dégloo dafay leeral te wallahi ku yàlla defal tawfiq la dafa leeral ci manhaju tasfiya leeral lan mooy tasfiya mooy seet gàttay sunna génne yi wéru leeral ko ba mu noppee xam nga lu mu wax muy ndeysaan xeet wi tey dañoo manqué ku leen tarbiya ku leen yar mu ne noo ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala beneen borome xam-xam bu yàlla tàggat mu dimbali ñu ci yar xeet xoolal googu maanute te moo ne moom tasfiya ak tarbiya yépp la doon boole te lenn ci ay jikkoom dana feeñal ni moom tarbiya da ci doon góorgóorlu bu baax a baax am naa jikkoy cheikh cheikh albani lenn ci ay jikkoom damay wax tawaadu shayt wa rujuuhu ila alxaq cheikh albani ñi mu oyofee woon ak nangoo dellu ci dëgg saa buñ ko wanee dëgg balaa loolu rek cheikh abi ishaq alxooy day nettali lenn ci wàcce goo xam ne Cheikh Nasir wàcce woon na ko boppam mooy Abu Ishaq nee na moom saa bu masaana nuyu Cheikh Nasir dafay jël loxob Cheikh Nasir fóon Cheikh Nasir nit ñi bul fóonati sama loxo bi de mu ni may ma dëgër bopp rek di ko def rek benn bis mu ni yow xanaa waxuma noon bu ko def ma ne ko du yow yaa bind ci sa ahadis saxiixa ni maanaam fóon li nga xamante nii moom mooy loxob borom xam-xam bokk na ci sunna du yaa waxoon loolu Cheikh Nasir ni ko ndax dangaa mas a gisul borom xam-xam la hawla wala quwwata illa billah mu ne ko ndax da ngaa mas a gis borom xam-xam mu ne ko fii ma taxaw nag fii laa koy gisee mu ne ko subhanallah ragalal yàlla innama ana tuwaylu bi ilm la hawla wala quwwata tuwaylib tasgiru taalib waxul sax innama ana taalibu ilm waxul ndongo xam-xam laa dani tuwaylibu ilmin ak ndongos xam-xam satala gi am na ndox ñu ne am ndox ndox mu matul sax jàppa ci nekk ñu ne as ndox moom sax waxut taalib ilm tuwaylib ilm man as ndongos xam-xam laa subhanallah xoolal kii ci mu toll ci martaba bii waaye nag wa xaqan ma tawada abdun lillahi illa rafaahu llah ab jaam moom du wàcce boppam te yàlla rek tax bañ a feeñ bañ a fës lu dul yàlla dana ko yëkkati moo tax borom xam-xam yi kenn bëgg ci woon siiw ak ñu naan la yow la ak yaay borom xam-xam bi moo tax imam Bukhari daana wax ni man day ak a neexoon ma nekk ci gott boo xamante ni kenn xam wax jooju imam Bukhari wax na ko imam abu abu ahmad ibn Hanbal ci wax na gott boo xam ni kenn du ma xam ndax ma rek ma mën a concentré wu jaamu yàlla ndax ñoom siiw moom waxuñ ci woon dara Cheikh Nasir Albani ay mbokk yu nekkoon fële ca réewu Pakistan yónnee nañ ko ab lettre ni ko dañoo am benn séminaire boo xam ne bu mag la ay boromi xam-xam ñoo ciy daje te dañoo bëggoon nga ñëw fekkee si ñu sàkku ci kenn ndongoy Cheikh Nasir yi pour mu wax ko Cheikh Nasir dañoo fekkee ko Cheikh Nasir gàntal bi ko ndongoy laajee lu tax nga gàntal mu ne ko ñoom dañ ma bëgg bëgg bëgg bay ëppal ci bëgg gi te loola neexuma la ñuy wax it bëgguma koo dégg moo tax bëggumaa dem allahu akbar kenn ku ne ci ñun la natt ci ñun su doon yow la nga xamante nii fan la dafa mel ni sax fan la gën a bëggee fa nga sa war a gën a demee fan la gën a bëggee fa nga sa war a gën a demee moom mu gàntal noonee demut ndax rek mbir yu mel noonu Cheikh Nasir Albani rahimahullah wane woon na melokaan bu mag ci nangu dëgg loolu su ma ci doon joxe misaal yu bari la ndax xam ngeen ni jullit dafa war a nangu dëgg ak fu mu mën a bàyyi ko doonte sax ki gi ki indi dëgg xale la mag la yaa ko jàngal moo la jàngal borom xam-xam la du borom xam-xam wuute ngeen manhaj wuute ngeen mazhab yi am solo li am solo mooy alxaqu daalatul mumin yow daal dëgg moo la réer poos boo ko fekk xamal ni yaa ko moom amut poosu kii la amut poosu kaala dëgg la jëlal dem xoolal tawaadu gi borom xam-xam yi amoon imam malik dafa jàngale yàgg ñu laaj ko ne ko waaw xalil baaraam ci njàpp moom ndax am na loolu ci ron mu ne déedéet dara rotu ci benn ndongoom daal di génn ak moom ci pet ni ko ah gis nga ni ñu yaroo de mu génn ni ko ah cheikh man de dégg naa ci nangam nag mu ni ko ah mu ne ko waaw mu ne ko waxaatal ma dégg mu wax ko mu xam ne lii xadis la bu wér ca xalqab ñaareel ba cheikh imam malik mu ni masala ma waxoon démb kat damaa juum kii moo ma gindi moo ma dimbal subhanallah xoolal bii yar waaye xoolal bii tawaaba cheikh nasir sharh aqidati tahawiya boo ci demee di nga ca fekk ay barab yoo xam ni da cay leeral ay erreur yu mu def bu paree ci erreur danaan diw moo ma ko wax subhanallah am na ci boo xam mi ngi nettali Cheikh Ibrahima Duwaysh mu ne moom moo ko bindab lettre xamal ko njuum ca boobu wa kadalika yeneen i téeréem léeg-léeg mu def njuum te danaan fii de juum naa fi waaye wal fadlu inda diw nga ne li kat diwa ko moom ndax moomam xamal ni fii kat juum naa fi subhanallah bu doon ñu noom da nga ñëw ah nee na nangam sax njuum yow pour juum nga yow yaay kan ba pour juum nga sax doo ko nangu yaay kan ba pour juum nga sax doo ko nangu xatta walaw bu fekkee sax njuumte daa feeñ sax bu ñibbi da nga yëg naqaru xol subhanallah ndax yow est ce que waroo tuumaa sabab yàlla moo tax ngay woote wala déet yaa fi boo juumee ñu jubanti la santal yàlla mu ngi mel ni ku bëgg jaar ci tali bi kay oto waroon koo fel benn waaye mu ne ko nii kaay loolu dong la kon shaqtaana shaqtaana ma bayna haulaai wala ak a sore fukki mbubb ak yaramu neen ni nu soree noonu la nu soree ña ay jëf Cheikh Nasir Albani rahimahullah bokk na ci ay melokaanam mooy saa bu juumee xam nga ñu bari dañu jàpp ne Cheikh Nasir boo ko jubbantee du jël dëgg nit ñi loolu la ñuy wax subhanallah wallahi ak a konsol dañoo xamul manhaju nit Cheikh Nasir dafa jàng ba am xam-xam am manhaju boppam bokk na ci manhajam mooy lëm gëstu ba mu leer ci moom ci ay xadiit tey ci suba rek maa ngi jokkoog docteur Cheikh Ahmad Lo di ko laaj ay laaj ci Cheikh Nasir la àlla xëy na yenn yi dinaa ko leeral ay leeral yu am solo xatta enregistré nañ ko dinaa ko jox mbokk yu jëriñ ci bokk na ci lim doon leeral lii am na mën a jëf boppam boo xam ni lépp loo xam ni gis na ni lii mooy lu wér ci ay adilla lu ko gën a wér rek ka mën a tax mu baax loolu la nit ñi xamut moo tax Cheikh Nasir ab masala mën ci dëgër dëgër dëgër waaye su fekkoonte ni du deltu gannaaw ci masala bu ñaata masala ngeen xam yu ne Cheikh Nasir deltu ci gannaaw moo tax danaan wax ni kan mooy mën a taali ay at te du del ci gannaaw di jubbanti ay njuumte ndax moom li muy taalif wax la ko bàyyi ko ci asamaan wala déet nii la ko doon waxee allahu akbar kon Cheikh Nasir ku nangu woon dëgg la ak fu ñu ko mën a laaxi bii ku oy faroon boppam la benn ci ndongoom yi dafa ànd ak moom ndeysaan ci àll ba mu yàgg mu ne ko Cheikh Nasir ma ne daa am laaj ma la bëggoon a laaj xam naa ne liggéeyam du sunna liggéey boo xam ni rëy na lool ci àddina bi ma ne damaa xamut soo faatoo kan moo lay wuutu ndax dinañ amati ku mel ni yow Cheikh Nasir tibb coppa suuf ni ko pëccëx ci biir gémmiñ gi mu ne ko ndax ma jëfe xadiis ak yonent bi ku la tàggati def ko nii ndongo bi mooy nettali mu ni li ko yéem du jëf ci li ko yéem mooy moom ni ko Cheikh Nasir rusee woon mu ni foogoon naa ni man ak moom ci digg àll bi kese ruseelum nit war naa mën a tax mu jëfe sunna waaye loolu teewul mu jëfe sunna mu ne looloo ko yéem Aliou Hassan mi ngi nettali ci benn kaset mu ni benn bis damaa ñëw ne cheikh bi waa yow ah man naatamidu baadaka fi ilmi alxadis ku ñuy sukkandiku ci xam-xamu xadis boo fi jógee mu ne ko i'tamidu ala anfusikum uridukum xayran min al albaab jug leen ngeen dem def seen effort yi bopp ndax man bëgg naa bala ma fi jógee ngeen gën albaab allahu akbar kan mooy kuy joxe xam-xam koo xam ni yéene mooy ay ndongom raw ko ñun ku ciy jàngale ba sa benn ndongo commencé laa raw sax nga tàmbale koo añaane waaw di wax ni dafa lii dafa laa di ko tuumaal kenn li illa man rahima rabbul alamin bëggoo sa ndongo sut la loolu dañoo xamul ni ndam la kii maa ko jàngal ba mu raw kooku ndam la ndam lu rëy rëy rëy rëy rëy yow kay wax dëgg yàlla boo amee lu ñuy xool tey maa la ko jox kon kay sant yàlla alhamdulilah ci tawfiqu yàlla kon yii ay mbir la yoo xam wax dëgg yàlla nasal allah salamata wal afia amma sabruhu wa jalduhu ala dirasa